del déglu del xool Feeling Dakar. joyeux anniversaire.

daa jël sa doom. kay jël booy bu waxal booy. booy. ah lii wut. naas ngeen. anniversaire. happy birthday to you mon ami de mais mais mais mais kontaan naa. kenn du yow. trop. yow loo dund doyul. tu es mon ami tu loo dund doyul. ah yow boo defee nii dafa rëy. yow loo dund doyul. maa ngi lay ñaanal aussi tamit vraiment geste bu rafet na. ndeysaan nga ànd seeg safara. waaw Mbaye Diop. Mbaye Diop deux. sama fii sa ngi nii. sama ànd ak mbër baabooy ah, non baabooy mag la <laughs> donc vraiment kontaan naa yàlla na yàlla fay leen te jàppale leen gis nañ taxawaay bi rafet na jàmm ci yow yow borom baax nga mon ami yow borom baax nga yaa booy te loolu ci anniversaire bi yow kontaan naa li ma ne sa bis nga am. day wane yëg-yëg rek a mel nii. du du du lu mu yor. mais da ngeen ko def yàlla tax a jóg ko lële. kon nag maa ngi ci xelal te bis yaa si tamit defee ci bu di faral yëg yàlla. taw bu non kontaan rek kontaan rek. sa waay champion la de. waaw bu mag sax. mooy ndaaraanu mbër yi. waaw bu dee. mais li jëlal leen li na ngi nii. waaw li na ngi nii. mais Boucher loolu kenn waxatu ko. à vie. mooy li may wax soxlaw ma beneen mbër ci réew mi. soxlaw ma beneen xaritu mbër ci réew mi. Mhm. si sama xarit la sama mag la sama mhm. frère la sama lépp la. Mhm. je suis là toujours avec lui. ndaanaan la. yéene ma lu baax. yéene ma loo xam ne ma réussir. bëgg ma am lu baax. bëgg ma tedd. kon kooku du ma ko gën a dara ci àll. je l'aime trop. moom doomu ndeyam lin li na nii boobu ba tey mi sonn. anniversaire bi lim lu la la ci daj. surprise bi. Mm-hmm. sa fii la ne mi ngi fii mi ngi fii mi ngi fii xam nga ba tey lii am. kon tey dañuy ñëw. Mm-hmm. liggéey ak mm-hmm. may ko gudd fan ak wér. dundal ko. jàmmal ko. ah kay. baax rek. nga daan bëmbal jël jël bu rëy. allah jàpp ko rek kor. doorum daal champion la. Euh. <laughs> sama ordonnance rek. ñëpp ñëpp waaye. Serigne Bamba. champion xanaa ndawal li. ndawal laa ngi ñëw. ndawal laa ngi ñëw. ndawal li fi mu jógee see. ci waa ji wala wala. waaw waaw.